أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ñuy dugg tey suuratu huud tey ñuy jël juróomi aaya ci saar bi juróomi aaya yooyu sunu borom subhanahu wa taala diñ ci jàngal juróomi mbir ba ca jiitu mooy mazhar min mazahiri ijazil quran wa huwa annahu muallafun min alxurufi almuqattaa walam tastatiu alarab al ittiyaanu bi suura misli bokk na ci li ñu sunu borom di jàngal tey mooy won ñu benn phénomène ci phénomène phénomène yi nga xam ne alquran lottal na ko képp kuy doomu aadama ci kaw suuf alquran def laa lottal su doon mbër la ñu ne def laa yenu ba ci kaw dóor la ci suuf loolu mooy lan mooy alquran dañ koo formé ci ay xarafu arab loolu ngeen jàng ñu naan alifun baaun alifun ba yaaun xarfu arab yooyu moom la yàlla jël formé ci alquran ba pare nag daal di lancé défi yàlla ne araf yaa ngoog ku mun a wax comme sama wax ji waxal ndax am na ku ko wax su fekkee ñu ngand ña sax ñu ngi doon ngand ngandlu zaaru musaylimatul kazaab yi ñoo réussirul wax ma la ak cumbur yi kooku moom lu bon bon doon na concurrence ak yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan moom tamit yonent la ni alxuraan di wàcce ci yonent bi mu ne moom tamit alxuraan day wàcc ci moom ñu ne ko indi sa saar moom lu bon bon indi woon na suratul fiil ak suratul kawsara ak ban saar formé woon na yooyu inna ataynaaka al kawsar mu ne inna ataynaaka al jawahir alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabi fiil mu ne al fiilu mal fiil wa ma adraka mal fiil moom sax tane moo moo tane woon gaa yi ndeysaan kon alquran kàddu yàlla la ñu ngi ko formé ci ay baati arab wàcce ko ci Seydina Muhammad Jibril indil ko ko muy wax joo xam ne dafa ëmb 114 saar yàlla lottal ci mboolem araab yi ne leen bu ngeen mënee wax lu mel nii wax leen ko kenn waxagu ko ba léegi. yàlla dafa leen wax indi leen aaya mënuñu ko mu ne indi leen saar mënuñu ko mu ne leen indi leen fukki aaya mënuñu ko ba léegi nii kenn indéegu ko septième siècle la ba léegi téere bi kenn waxagul wax ju mel nii. moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan ñenn ñi naan alxuraan du wax yàlla waxu Muhammad la d'accord nañ léegi nañ jël wax ji ñu askane ko Muhammad kon su fekkee Muhammad moo ko wax kon Muhammad ngand la ku jàngul demul ci benn école demul benn université indi fi téere boo xamante ne lottuloo na ñëpp kon kay kii ngand nga wala moom dong yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la fi mujizaam des amul keneen nuux mujisaam dem na ibrahim dem na moussa ana yat ba ma nga gunaas ah wala isa ana mu ana mujisaam moom dong yonent bi alayhi salatu wasalaam moom la fi mujisaam des mooy téere bi yàlla ne laa yaatihi albatil min bayni yadayhi wala min xalfi caaxaan du ko jóge ndeyjoor du ko jóge sow du ko jóge penk du ko jóge fenn téere baa ngoog kon téere bi mu nekk suñu téere suñu dundin ni ñu war a dundee yàlla tënkal ñu ko ci kon téere bi waruñu koo fowee mënuñu dund sans téere bi tey biñ bàyyee téere bi di dund moo tax ñun ñëpp ñu alku moo tax nga gis pas-pas yu doy yu doy waar nga gis pas-pas yu bon nga gis doomu aadama yoo xam ne la ñu gëm ak la ñuy la ñuy dund kenn xamul lan la lu tax parce que pas-pas bi lañ bàyyi sahabatul kiram lan moo taxoon seen pas-pas wér taabiina ña ca tekk ña ca toppoon parce que téere bi lañ defoon seen nos téere bi lañ defoon seen jëy ñun ay jullit lañ waaye soo waxee ñu ne ah alxuraan de téere barkeelu la wala koo ci gis na naan am naa benn kaamil kaamil bi de ci koor gi laa ko gëjoon laal ñuy tafsir quoi yéen a ngi fàttaliku kooku di nettali xissa imaam buy sàcc imaam bi nga xam ne sàcc la yéen a ngi fàttaliku xissa bi ah imaam bi nga xam ne sàcc la lu tax ñu ne imaam bi sàcc la benn waaye moo ko accusé ne imaam suñu imaam bi nekk sàcc la yaakaar naa xisa boobu déggoon ngeen ko jaruñu ci derduwaat dañuy tardeel ñaareel mooy bayaanul illa fi inzalil kitab wa ahkaami ayatihi al aaya yi ñuy jàng tey daf ñuy leeralal illa lan moo tax yàlla wàcce téere bi téere alxuraan lu tax yàlla wàcce ko suñu doon laaj léegi fii ñu toog kenn ku ñu nekk ñu lay laaj lu tax yàlla wàcce alxuraan looy tontu téere bi kon kenn ku nekk fi nga toog da ngaa war a xam lu tax yàlla wàcce téere bi waaye yemul ci loolu mais ahkaam yàlla dafa xerañal atte yi ndeysaan da koo xerañal leeralal ko yemu ci wa tafsiliha mu leeral ko faram-fànce ko ba adduna bi yëpp ku ñu wax alxuraan rek mu leer ci yow daal di neex wa hiya an yaabudullaha taala wahdahu bokk na ci li tax yàlla wàcc téere bi mooy pour ñu jaamu ko moom kenn wahdahu bu ñu jaamu keneen xam nga Sénégal ñuy jaamu keneen jaamuñu yàlla c'est parce que xamuñu téere bi ah di jaamu ay bàmmeel fan yee lañ ma yónnee benn vidéo ma gis ay nit tolloog juróomi nit xam ma fukki nit ñuy raam di raam fu ñu jëm ci benn bàmmeel di raam laa wax raam ci benn couloir la ñuy raam da ngay raam fii ba fële pour egg ci bàmmeel bi da ngay raam doo dox dañ faa teg ay nit ku ñëw da ngay raam foofu jarut a dem ndax bokkaale moo fa nekk amoon na benn borom xamam bu tudd nu waa ji tuddati benn buur daf ko woo parce que xam na ne kii du bokkaale mu ne foog dina bokkaale tey kii dina bokkaale ñu ne ko du bul du bokkaale bul sona sabab mu ne giñ naa ci sama yàlla bi may jaamu kii dina bokkaale tey yàlla bi muy jaamu ñu ne baax na ñu dem jël benn bunt bunt bu gudd comme nii ñu gàttal bunt bi def ci kaw benn estati pour bu ñëwee ba ba jib bunt bi pour mu dugg nu muy def day sëgg ñu ne bokkaale na bi mu ñëwee ba ne sës gis na bunt bi ndeysaan mu daal leen di xool xool bunt bi mu daal di ree mu daal di tourner ginnaaw ñu ne kii li muy def nii mu ne nii daal di duggee noonu daal di arrière nee na moom kanamam gi du ko jox xërëm bi fii la koy jox fii mu arrière noonu la duggee ñoom ñëpp ñu jox mi ñu ne ñu ne ko waxoon nañ la ko mu ne kii voilà parce que xam nga lu tax dafa comprendre su ngeen demee sumb sumb jun bu ngeen dem suñu sumb jun am na benn buntu bu ñu fa benn waaye bu ñu fa def mu yor gën xaw ma ne day tux ñu defa benn monument ci wetu géej gi ñu tuddee ko xaw ma porte de lan ah suuf soo fay dugg da ngay bokkaale noonu lañ fa def ku foo musa dem jaar ci buntu bi bokkaale nga ndax sëggal nga xërëm boobu moo tax bu ngeen di def di dem ci yii da ngeen di xam li ngeen di dem lan la ñoom defuñu dara pour hasard am na benn fas bu nekk wetu RTS monument place de l'indépendance bokkaale la ngandi maami xërëm la boobu mu ni ma Ablaye Wade bi boobu mooy xërëm bi gën a rëy ci Afrique da ngeen defe ne yooyu nii pour hasard la moo tax la yenn saa nga dikku ne man de tey fa temps yi foofu la ñuy dem loo fay wuti fu ñuy bokkaale yàlla loo fay wuti foo xam ne boo fa demee yow bokkaale nga parce que monument bi du hasard ñu def ko fi am na lu tax am na lu muy représenté ci seen jaamu yàlla yow loo fay def mbokk yi téere bi yàlla daf ko wàcce ngir ñu jaamu ko moom kenn kot waaye waa an yastaghfiruhu ñu koy waa an yastaghfiruhu almushrikuun bokkaalekat yi waru tuub di yëggulu yàlla jéggulu ko bokkaale baaxul mooy sël benn bàkkaar bu nga xam ne ku ci dee yàlla soo ko deewaale yàlla du la baal waaye bokkaale lu sew la yonent bi da ci daan muslu yàlla ak bokkaale nga waat ci nit bokkaale nga takk gàllaaj bokkaale nga su jootal xërëm bokkaale nga su jootal néew bokkaale nga yooyu kon dafa jar a xam nit dafa war a xam lan mooy bokkaale ndax nga mucc ci ndax yonent bi nee na axfa min dabibi nam la xam ngeen xorondom xam ngeen xorondom xorondom mooy lan benn mbelentaan la bu ñuul kuk yonent bi nee na bokkaale dafa lëndëm ba mel ne mbelentaan bu ñuul boobu di dox ci xeer bu ñuul ci 3 heures du matin mu ñuul kukk ñu ne la xoolal tampon tànk yi ndax di nga ko gis mbelentaan bu ñuul boobu ci kaw lu ñuul rek doo ko gis ba pare 3 heures du matin encore kon bokkaale lëndëm na bokkaale sew na moo tax ñu war koo moytandiku war koo war koo war koo war koo war koo war koo moytandiku bu baax a baax a baax a baax balaa ñu ci tàbbi ndax yàlla nee na du ma ko du ma ko baale lu yàlla dul baale te mën nga cee dee mën ngaa xëy nekk jullit balaa ngoon nga bokkaale te bokkaale xam ngeen nu mu yàqee jaamu yàlla ah misaal bu gàtt bu yomb kan mu fi mos a lekk gerte caaf nekkati loxoom ku mos a lekk gerte caaf yëkkati sa loxo waaw yéen ñëpp lekk ngeen ko nga ñu defal la gerte caaf ngay lekk di lekk di lekk ba caag nga dugal ci benn bu nëb fekk bi ngay lekk lekk nga ba sa gémmiñ fees nga sex benn bu nëb bi nga sexee benn bu nëb ñaata yu baax ñoo nekk ci biir ah 20 yu baax ñu ngi ci biir wala 30 wala 50 benn bu nëb boobu nan la def yu baax yooyu da nga ne um ñu ne la la nga ne doo wax da ngay dem ba fële bi yàpp bi yëpp ba mu jeex tàgg gallax ndiku ñëw commencé waat à zéro noonu la bokkaale mel xoolal gémmiñ gi ni mu feesee benn gerte boobu nga ci dugal mu nëpp yàq na lépp bokkaale baaxul te tey Sénégal suñuy suñuy wër réew mi nga xam ne ñoo jël champion du monde bokkaale mooy ñun gisuleen coupe bi xanaa coupe baa ngi fii champion du monde bokkaale ñun ñoo jël coupe bi waaw coupe bi moo ngi fii Sénégal ñu teg ko réew mi gën a mën a bokkaale ci àdduna benn waaye dafa bind benn téere mu ne jigéen ñi gën a bon ci àdduna mooy jigéenu Nigéria ci njaaloo waaye réew mi gën a mën a bokkaale ci àdduna ñooy waa Sénégal benn bis dañoo am benn gan mu jóge Mauritanie ñu koy defaral visa pour mu aji màkk ñu boole maag moom ma yenn dong moom di wër ba heure yi ndeysaan ñu ñëw dugg fii defaru dugg ci jàkka ji julli toog nag jël sunuy ban teg ko fii ci buntu jàkka ji pour noppal tuuti ak jël ngelaw ma toog ba caaga ma ne ko noo gisee Sénégal mu ne ma baladu sirki wa tabarruj mu ne ma baladu sirki wa tabarruj amu amagul woon ci Sénégal 24 heures amagul 24 heures mu gis ne dëkk bi dëkku bokkaale la dëkku tambaambaloo jigéen ñi dañuy def tabarruj dañuy sol lu leen neex nekk ci mbedd yi wax na dëgg wala waxul dëgg ah wax na dëgg leen loolu jaadu na mbokk yi yàlla wàcce na téere bi pour ñu tuub pour ñu tuub ñu tuub dellu ci moom bàyyi bokkaale yi bàyyi bakkaar yi waaye yàlla wàccee na téere wi pour sunu ngëm mën a mat pour ñu texe àdduna texe àllaaxira pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk tout court mu gàtt yàlla wàccee na alquran pour ñu texe àdduna texe àllaaxira texe àdduna ak àllaaxira nu ñu koy amee mooy ñu xam fu ñuy teg suñu tànk te feek ñu ñu ngi ci alquran dañuy xam fu ñu teg suñu tànk ñetteel mooy wujubu taxalli ani shirk gis nga dafa war doomu aadama mu simmeeku ci bokkaale simmeeku ni ngay amee yére nga simmi ko teg ko ne noonu la doomu aadama war a simmeeku ci bokkaale yàlla tabaraka wa taala bokkaale bu leen yaakaar ne takk gàllaaj kese la déedéet bu leen yaakaar ne takk lam kese la bu leen yaakaar ne takk photo kese la déedéet bokkaale dafa sew dafa laqatu dafa nëbbatu xoola ki nga xam ne du takk gàllaaj waaye saa yu waxee yàlla boole ci keneen wala keneen la gën a gëm ak yàlla su ko yàlla santee du def bu ko keneen santee mu def loolu lan la loolu du bokkaale kon jullit dafa war a simmeeku ba set wecc ci bokkaale muy contrôler 24 heures dundam ndax bokkaale wu ma yàlla tey ndax xamoo kañ ngay dee te boo ci dee yàlla neen du ma la baal non kon loolu jar naa mooy tandiku xam ngeen bokkaale nu mu grave yàlla daa joxoñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow Muhammad li ma lay bëgg-bëgg li ngay foor foor foor li ngay màgg màgg màgg la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala loolu du alxuraan giñ naa ci sama màggaay man yàlla lam bi laamul xasam la nun bi nunu tawkiit la in ashrakta soo bokkaalee yow Muhammad la yaxbatan na amalu sa jëf yëpp ay yàqu fan aaya bi lu lu ci continué ah dégguma yàlla nee na ko di nga bokk ci ñi perte xanaa sa jëf yàqu na doyoon na waaye nee na ko yàlla nee na ko da ngay perte da ngay perte su yàlla ne Muhammad da ngay perte kon keneen wala takunanna min alxaasirin géej naa ci sama màggaay boo bokkaalee sa jëf yëpp ay yàqu te di nga bokk ci ñu perte ah kon keneen waxi noppi waaw kon yàlla boo xëy loolu Muhammad ay Sambaak Dembaak Moodoog Yeroog ñooñu moom fu ñu jëm kon ñooñu waxi noppi allahu akbar bu benn waaye duggee seen kër poñe sa papa ba ci kaw ne ko nii ba tànk yi laalatul suuf yow moom bu yeboo rek nga ñëw négocier wala waaw mu ngoog kon julli dafa war mu siit wécc ci bokkaale awalan summa al ibadatu al xaalisatu saaniyan boo simmeekoo ba set loolu gaay naan boo sangoo ba set diw ba leer bay nes nesi lu set réew nga sol sa yére rek waaye sangoo goo dafa goo dara wàcc liggéey rek sol yére yére yi weex tal loolu sa xel nangu na ko ah kenn ci ñun fi bu wàccoon liggéey surtout nag ouvrier nga wàcc ak sa taqaay ak sa tilimaay ak sa dand sa soxna tegal la ndox tegal la saabu tegal la njàmpe tegal la tegal la tegal la tegal la tegal la lépp tegal la yére yi pour boo génnee nga ñëw rek simi tëni bi rek sol yére yi toog mu ne eh yow ko watta ni yow lay def ni non waay bàyyi bàyyil noonu waay la la lay wax yow de Sénégal yaa fi gën a salte waat naa ci yàlla boo sanguwul tey doo tëdd ci lal bi nga nekk fay négocier ah ndeysaan amoon naa gisoon naa benn mbokk bu jigéen lu ko booleeg jëkkëram sangu sangu ba sëy ba tas no si ne ma imaam ma ne ah mu ne ma kii bu wàccee damay tàngal ndox mi tegal ko saabu tegal ko njàmbe ndox mi mu ne ah mu ne mu ne dama ciy sotti parfum mu ne waaye du sangu de waaw jaral na ko mu dem toog fa du sangu man tamit ma ne ko boo sanguwul doo tëdd doo dugg ci nit bi sëy ba tas loolu jaaduwul de ah ah yow tamit xam nga ko tudd noonu kii tamit xam na ne ne kenn ku mel noonu laa ilaha illa allah ci lislaam boo simmeekoo ci bokkaale ba pare da ngay jaamu yàlla nag te sellal ko mooy boo sangoo ba pare mooy baatu laa ilaha illa allah laa ilaha mooy da ngay bale ba mu set illa allah nga samp nag waaw beneen ba ci tegu mooy almaaruuf laa yu day inda allahi taala lu baax du yàlla du ko réeral mu képp ku def lu baax yàlla fay la waaw ku def lu baax ak lu mu tuuti tuuti yàlla du sakk jëf soo defee lu baax lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ak foo ko mën a defee yàlla dina la ko dencal ba ëllëg yowmal xiyaam mu fay la rawatina nag isa kaana saahibuhu min ahli tawhid rawatina nag ki ko def bu amee pas-pas bu rafet am tawhid waaw allahu akbar wala fi nee nañ cere ju neex ca la diw dàqe ki def lu baax loolu rawatina bu amee tawhid kon mbokk jullit yi lii ñuy jàng nii du ay léeboon ak léppoon nit ñu baax ñi sahabatul kiram ak ña leen toppoon ak ñi yonent bi yaroon li tax ñu egg foofu mooy lii lañ doon dund ñun tey dañoo bëgg a yegg foofu ba pare bëgg a teg li ci ginnaaw mun ta nekk ba ca tegu mooy bayaan jahlul mushrikina allazina kaanu ay yaa ngi leeral réeru bokkaalekat yi kaanu yastaruuna an illahi bi ruusihim wa siyaabihim dañ daan nëbbatu sunu borom subhanahu wa taala ci seeni bopp ci seeni biir yére dafa ne yàlla gisu leen loolu leer weesu ko jékki-jékki rek ne nii ne yàlla gisuma ah loolu est-ce que fas-fas wér la ndax yàlla dina bañ a gis nit jàngeen ci suratu Nuux yàlla nee na Nuux bu doon wooy gaay li ñuy def jaalu asaabiahum jaalu asaabiahum fi azanihim wa saxsaw yàlla di wax ak yow nga ne nii nee na du ma dégg lu muy wax ñu ne déet nga jël sa mbu mbubu daal di sàngu daal laa tasma'u li haazal quraan walghaw fii la'allakum loolu lañ daan def yonente bi ñu ne bu leen déglu alquran bi yuuxu leen ndeysaan loolu mu ngi may fàttali jamono ji ñuy jóg di daawa nekk ay jeune buñ jullee jumaa ba pare ñuy bayaan ci jumaa ji dañuy julli rek daal di génn taxaw fële di bayaan inna alhamdulillah nit ñi bu ñu génnee taxaw jumaa ji fees dal bàyyi tere ba sonn bàyyi leen waaraate bi fii bàyyi leen waaraate bi bàyyi leen waaraate bi ñu bañ bàyyi daa dem wax seen jabar yi vendredi bii di ñëw na ngeen ñëw ci jumaa ji bu ñu sëlmalee rek ngeen indi seeni paan ngeen commencé tëgg boobu paanu weñ moo amoon paanu weñ paan yi ngeen di gis kaws ay weñ la woon ñu sëlmal taxaw rek inna alhamdulillah rek paan yi commencé rëngata ndëngër rëngata ndëngër rek fii du jàkkaay baadu yi fii du jàkkaay baadu yi fii du jàkkaay baadu yi ñuy tëgg ndeysaan paan yi laa ilaha illa allah ndeysaan di tëgg laa la wax bayaan bi yëpp maire yi dañ koo tëgg di yuux seen doom yi di tëb waaw ndeysaan yal na yàlla yërëm ñu ko doon def ñoom ñëpp faatu nañ ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf na leen yàlla yërëm dundoon na ñoom ak ñoom gudd yu méttee méttee méttee méttee waaye alhamdulilah gis ngeen rek diine l'islam mooy dëgg oustaz daf ñu doon wax ne islam buumu courant la day alimenté boo ci jàppee dalay maas soo bañee bàyyi dalay rey te soo dee mu continuer di alimenté mooy l'islam moo tax ñoom macaroni yi dañuy sonal seen bopp rek xaw ma macaroni xaw ma nu mu tuddati waaw marji'u naas ila rabbihim dañ jàng ndeysaan nit ñi ci seen borom la ñuy dellu saa u am abu neex nañu wala naqari wuñ ci yàlla la ngeen la ñuy dell ku mu neex di nga dee ku mu naqari di nga dee ku mu neex di nga dellu ci yàlla ku mu naqari di nga dellu ci yàlla waaw loolu moom sikk amu ci bu yeboo ñu xam loolu su ko defee yàlla moo ñuy fay fay bu rafet ña defoon lu baax yàlla fay leen ñi defoon safaan yàlla daal di leen di fay aaya yooyu mbokk yi di juróomi aaya moom la ñuy jël ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير كرر الآية
إني لكم منه نذير وبشير قالت الآية به
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويأتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور jazakumullah xeyran yal na yàlla fayal ñu la yiw mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala ginnaaw ba ñu tàmbalee ci turam bu sell bi moom mi nga xam ne moo tas yërmande ci àdduna te mu jagleel jullit ñi yërmande àllaaxira mu ne alif laam ra baat la yoo xam ne kenn xamul lu muy tekki allahu aalamu bi muraadihi bi zalik yàlla moo xam la mu ca namm ay baati ara arab la yoo xam ne ay lettre la alphabet yu ñu daggate yàlla tànn ci ay baat ubbeeku ay saar ci alquran léeg-léeg nga dégg kenn ci nit ñi di ko jéem a firi waaye yonente alayhi salaatu wasalaam firi yu ko woon te yaakaar naa ne yonent bi lu mu firiwul woon nit ki war na cee mën a maandu loo xam ne yonent moo ko wax ba pare ne yàlla moo xam lim ci namm yemal foofu mais déedéet saay kuy ngand ngandulu wax loo xam ne sa yaram day daw dafa ne wax na xam-xam fekk waxul dara parce que amul li nga wax noonu amul benn dalil alif laam raa kitaabun téere la boo xam ne uhkimat dañoo nose nos goo xam ne dafa xereñ aayaatuhu aaye yi dañ ko noseel organiser ko saar yi aaye yi tegale ko waaye summa fussilat ñu firi ko leeral ko min ladun hakimin xabir mu bàyyoo ko ci ki nga xam ne hakim ku xereñ la allahu akbar moo tax téere bi xereñ parce que ci ku xereñ la bàyyee ko lan mooy xereñ ci olof xam ngeen ko damay laajte na xam ngeen baatu xereñ ci olof xam ngeen xereñ xereñ mooy misaal tey jàkka ji benn ingénieur buy liggéey ci bâtiment mën nañoo xool ba caag mu ne lii moom lii lii dara baaxu ci dañ ko war a changer du nii ñu ne ko lu tax mu commencé di génne erreur yi wala naka noonu ci lu nekk yére bi nga sol am na léegi benn modéliste buy ñëw ne la mu yow te sa téer bi moom kii xanaa bébé la day jàng ñëw naka noonu ci menuiserie naka noonu ci ah lu nekk mën nañ cee génne erreur waaye ba mu des li yàlla defar ndax yàlla dafa xereñ ma jox la misaal bi yàlla lim def kenn mën koo corriger jëlal sa bopp sa bopp ku nekk jëlal sa bopp aha bismillah léegi jógal taxaw nga wax sa bopp yow sa bopp bi yàlla dafa juum fan lañ ko waroon def bismillah ku may tontu sama bopp bi de warul woon nekk fii ma xool fan lañ ko waroon def fan lañ koy def bët yi ah léegi nañ bàyyi bopp bi ñëwal ci bët yi non non non non bët yi moom vraiment sama bët yi daal man ma yaakaaroon ne ma xool suñ ma ko defaloon côté bii nga xam ne nii laay xoolee nii ah du gémmiñ gi suñ ko defoon ci ginnaaw nga xam ne bu ma tibbee ba pare nii laay def du sotti yàlla dafa xereñ xoolal nit ni mu ko bindee xoolal sa bopp rek amoo looy corriger moo tax borom bi ne wa fi anfusikum afala tubsirun acca bismillah nañ corriger tànk yi foo bëgg mu nekk ñu def ko ci kaw bopp bi bii ci kaw ñu def ci benn tànk ci suuf ñu def benn tànk gis nga yàlla dafa xereñ hakim xoolal asamaan ni ko yàlla bindee moo tax borom bi bi mu ñuy bëgg a delloo si ci suratul mulk lan la wax ah kon ay aaya la yoo xam ne chaque jour ñu ciy teg bët yàlla neen doomu aadama xoolal kaw asamaan ndax di nga fa gis erreur doomu aadama xool ba dellu siwaat yàlla mu ne ko dellool bët yi su marjiil basara karratayni yanqalibu ilayka al basaru xaasi an wa huwa hasir allahu akbar jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xoola yàlla ni mu binde géej gi xoola ni mu binde biddéew yi xoola ni mu binde asamaan xoola ni mu binde suuf xoola ni mu binde garab yi inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wannahaar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء lu ci yàlla teg fa ahya bihi baada kon ay aaya la yoo xam ne sunu borom li mu wax suñ ko doon xool rek dañuy gis kéemtaanu yàlla wa basta fiha min kulli dabba min kulli dabba mboolem luy dund di dukkat yàlla nee na ma génn ko ci suuf si wa tasrifi riyah wa sahabi musaxar bayna samaa'i wal ard waaye la ayatin kon affaire yi du hasard sunu borom mooy ku xereñ hakim yamu ci mu ne xabiir xabiir mooy lan mooy expert bu mag bi hakim xabiir allahu akbar dafa xereñ ba pare nekk expert lu mu def rek noonu la kenn du ne lii waru koon def xoolal ni mu sàkkee ni mu sàkkee doo ni mu sàkkee mi adduna bi ku xool da ngay xam ne nii la adduna bi war a mel asamaan fu mu waroon nekk ah ci kaw bu def ko ci kaw suuf fu mu war a nekk géej gi fu mu war a nekk ngelaw li fan la war a nekk xoola tey bu ngelaw nekkoon kaw asamaan ñu ne la bala ngay nooy da ngay dem rooti ba pare ñëwaat ngelaw fooy jaar ba dem su fekkoon ne ngelaw dafa nekk ci biir suuf si ñu ne la da ngay gas di ut peel nga gas ba nga yegg gi ngelaw li fu mu nekk nga doog a ut ay siwo nga ay foo jëm allahu akbar hakim xabiir sunu borom jalla jalaaluhu az yemul ci loolu mu ne lii lépp nag man maa ko def an laa taabudu illa allah waay waay waay nga la waay bu leen jaamu kon keneen ku dul kii allah taabudu illa allah bu leen jaamu kon keneen ku dul yàlla kooku ngay jaamu lan la def damay laaj ñi ñuy jaamu lan lañ def ah sunu borom alxuraanam bi doy doy na waar yéeme na wala borom bi mu ne yaa ayyuhan naas yàlla ñëpp la woo foofu yaa ayyuhan naas gaa yi ne teg yaa ayyuhan naas bàyyiwul jul jullit ak yéeféer ak ñëpp dugg nañ de wala wala yéen bindeef yi ñu ne ah lu mu teg ci aaya bi duriba masalan fastami'u la maa ngi leen di exposer ay wax déglu leen ko maa ngi leen di gaaral ay wax déglu leen ko ini lazina tadduuna min dunillah ñi ngeen di woote dunu yàlla lu mu ci rek lam yaxluqu zubaaban binduñu weñ weñ weñ yi di naaw naan nii nu mu tuutee yàlla mu ne ñoom defaruñ ko te ñoom ñëpp bu ñu àndee mënuñoo defar weñ te weñ bu këfee ci ñoom dara mënuñu ko nangu ne ko indi waatal waay waay waay nañ dig diglu alxuraan xam nga lu mu teg ci aaya bi dufa taalibu wal matlub wa ma qadarullah xaqa qadrihi aka yambare kii topp ak ki ñuy topp ñoom ñaar ñoo yambare ku munul defar weñ nga koy topp koo xam ne bu weñ tegee ci góom bi ñuqati ci dara daw day taxaw fee weñ bi taxaw du xam sax weñ bi fu mu nekk yéen dàqal leen ma weñ ñi waay weñ ñi ñu ngi luqati sama góom bi rek abal leen ma benn morso ma sàngu ko ci kooku nga koy jaamu yàlla mu ne yaa ngi moom yëpp ay yambar ngeen ba pare mu ne ndeysaan xoolal man yàlla mbin wa ma qadarullah xaqa qadrihi nañ jàng alquran moo tax ñoo du ñu am problème waaye bu ñu bàyyee alquran dañuy dañuy alku ya ayuha nnas duriba masalan fastamiu lahu in allazina tad'una min dunillah lan yaxluqu zubaban walaw ijtamaau la ñoom ñëpp bu ngeen leen boole woon dugal leen ci benn estaat indil leen ay ay laaf indil leen yàpp indil leen deret indil leen ndox ne leen defar leen weñ mënuñu ko weñ la yàlla wax de waxul nag parce que yooyu dañoo ngand kon dañ dañuy am benn benn pëns quoi mais yàlla weñ la wax weñ weñ weñ xam ngeen weñ wala xam leen weñ mooy zubaab mooy weñ yi di naaw nii yàlla nee na bu nit ñi àndoon ci àdduna mënuñoo defar weñ yooyu ku mënul defar weñ kon war nañ laa topp ku mënul laa topp jalla jalaaluhu azza kamal suñu borom nee na maa ngi leen di yëgal ne inna nii man yonent bi alayhi salaatu wasalaam lakum minhu nazirun wa bashir lii ma leen wax ne yàlla rek lañ war a jaamu inna nii man lakum ñeel leen ci loolu minhu nazirun wa basir dama leen ci xupp di leen ci bégal xupp ci ñan ñi lànk bañ a jaamu yàlla ma bégal ñan ñi nangu jaamu yàlla ku nangu jaamu yàlla dugg àjjana ku bañ a jaamu yàlla dugg safara innani lakum minhu nazirun wa bashir ñaareel bi mooy an istaghfiru rabbakum ngalla waay jéggalu leen yàlla jéggalu leen ko dee leen wax astaghfirullah istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi ñaari mbiran ci aaya bi lan moo tax yàlla jiital baatu istighfar doog a indi tawba ah li tax baat yi yàlla njiital istixfaar doo koy indi tawba mooy yàlla bu buggee nga tuub def lay yenkewal ngay wax astaghfirullah soo commencé wax astaghfirullah tàmm ko rek da ngay tuub dellu ci yàlla moo tax koo gis làmmiñam astaghfirullah nekk ci ci tuub la jëm day tuub ku ko dul wax nag doo tuub mu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne maa leen gën a ragal yàlla waaye saa yu ma xëyee dinaa def téeméeri astaghfirullah beneen riwaaya mooy juróom-ñaar fukki yoon keroog ba aaya bi wàccee yàlla mu ne ko fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu yonent bi noppoytul fu mu toog astaghfirullah lay wax astaghfirullah astaghfirullah ba dundam yëpp jeex tàkk ci loolu la ko jeexal bañ nañ ko ba askaaru sabah wal masa def cee bokk lan nga wax téeméer astaghfirullah soo xëyee su ngoonee téeméer ñun nag lu yàlla xam doy na dañu yaakaar ne yooyu moom bokkul ci islam bi foo ñu def istixfaar de istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursilu sama aleykum istixfaar dafa bokk ci diine di jégglu yàlla astaghfirullah mooy lan mooy yàlla maa ngi lay jégglu saa yoo gisee kuy jégglu yàlla dina tuub moo tax ñu war di jégglu fu ñu toll sunu borom nee na summa tuubu ilayhi tuub leen dellu ci moom su ngeen ko defee yumatti'ukum mataan xasana yàlla dina leen bànneexuloo ci àdduna bànneexu bu rafet bu neex bi tiibil aish wa siati rizq yàlla dina leen may dund gu teey waaye yàlla dina leen may wërsëg wu yaatu kon astaghfirullah baax na de benn waay ñëw na ci benn borom xam-xam ne ko tool yi de amul ndox mu ne ko wax leen astaghfirullah keneen ñëw ne ko aw ma doom mu ne ko waxal astaghfirullah keneen ñëw ne ko damaa bëgg alal mu ne ko wax astaghfirullah keneen ki ne ko waaw benn comprimé ñetti feebar ndax ñooñu ñetti ñooñu li ñu wax benn la ndax ànd na ndax nuroo na ñooñ ñoom ñu jox leen astaghfirullah moo tax waa ji bi mu waxee da da ko ne xanaa déggoo yàlla li mu wax istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursilu sama wa yumdidukum wa jeex na soo bëggee am alal del wax astaghfirullah soo bëggee tekki del wax astaghfirullah soo bëggee texe del wax astaghfirullah soo bëggee say mbir yomb del wax astaghfirullah dañ ko essayé dañ ko essayé incha allah mbokk yi yàlla nee na dinaa leen bégal dinaa yaatal seen wërsëg ila ajalin musamman ba dee jot wa yuti kulla zi fadlin fadla wa yuti kulla zi fadlin fadla yàlla pour tabaraka wa taala ni mu binde addina bi nit ku nekk ak ngëneel yi nga war a am ak xéewal yi nga war a am kenn mun la kaa xañ yàlla dina la ko jox su addina bi yëpp àndoon bëgg la koo xañ yàlla daf la koy jox su addina bi yëpp àndoon ne dañ la koy jox te waroo ko am doo ko am wa yuti kulla zi fadlin fadla borom ngëneel gu nekk ngëneel gi ko yàlla jagleel dana ko ko jox bu tëddoon ci kaw lal di nelaw sax ñu indil ko ko léeg-léeg nga gis ku tëdd di nelaw ñu woo ko téléphone allo waaw kilifa gi waaw ya waaw ñun de man de dama la bëggoon yóbbu màkka mu ngi nelaw ci kaw lalam ñu indil ko biyee màkk deful dara wala gisu leen loolu ñaata nga gis góor gu toog ba jaag rek doomam wàcc na ko peer déwén nag damaa bëgg nga dem ziyaare ji yonent bi reer ndeysaan am naa benn waaye boo xam ne dañ ko ne da ngay dem màkk mu ne ban màkk ñu ne ko ah ñaata màkk nga xam mu ne bi yonent bi nekk ñu ne ko waaw mu ne allahu ah ndey gis nga xéewal yàlla fu nekk la koy jële fu nekk la koy ubbee sunu borom moo koy def borom bi ne wa in tatawallaw bu ngeen wëlbati ko wane ginnaaw lànk bañ a topp lii yàlla wax fa inni man axaafu aleykum azaba yawmin kabir ragal naa ci yéen mbugalu bés bu rëy ba yawmun kabir mooy ban bis mooy yawmal qiyaam yawmal qiyaam ay mbiram doy na waar de yawman yajalul wildaanu yaa ayyuhan lan la yàlla wax yaa ayyuhan naas la de ah ittaqu rabbakum alladi wala inna zalzalata saa seyun azim yowma tarawnaha tazahalu kulli murdiatin allahu akbar yowma tarawnaha bis bu ngeen di gis yowmal xiyaam tazahalu kullu murdiatin amma ardaat ku doon nàmpal ku ne li nga doon li nga doon nàmpal di nga ko teg ci suuf wa tadau kullu zaati xamlin jigéen bu ëmboon day avorté wa tara naasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakin yàlla neen nga gis nit ñi ñu ngi mel na ñu màndi di jarax jarax ñëpp a ngi màndi tàqalikook seen xel ku nekk ngi gëlëm xàmmeetoo kenn xamoo foo jëm yàlla mu ne màndi wu leen de mbugal mi tey moo metti mbugal mee metti waaw mbugal mi war naa metti mbugal moo xam ne commencement bi lan mooy wane ne mbugal mi metti na mooy jant bi ak weer wi la yàlla di mbëkkanti te ñaar yooyu ñoo ëpp suuf su yàlla mbëkkantee jant ak weer kon suuf fu mu jëm ah laa ilaha illallah maa ngi déglu fan yi ñu ne benn accident dafa am kaar la ak lan ak firgonet yooyu di chasse de jën ak lan ak bis ak bis ah ñu ne waa ji dafa doublé troisième position jàkkaarloog bis bi allahu akbar ah ci saase 16 morts xawlal te ana ana ñu nekkoon ci bis bi ana ñu nekkoon ci firgonet bi ah léegi nag ñun ñu nekk ci àdduna yàlla mbëkkante jant ak weer wa jumi as samsu wal qamar kon kay xam ngeen ne loolu du lu ndaw kon nañ leen waaj yowmal xiyaam du lu ndaw de doomu aadama daf koy préparé benn sahaaba ñëw na ci yonent bi alayhi salaam ne ko mata saa ya rasulallah yonent bi kañ la yowmal xiyaam yonent bi xool ko ba jàgg ne ko loo ko préparel mu ne mu ne du julli yu bëri de du woor yu bëri de waaye bëgg la yow yonent bi bëgg yàlla yonent bi ne ko almaru ma aman ahabba koo bëgg rek ëndëg yowmal xiyaam moom ngay àndal koo bëgg rek moom ngeen àndal ku ngeen bëgg yéen ku ngeen bëgg ku ngeen bëgg fu ngeen ko def fu ngeen ko def fii fii fu ngeen ko def fii fii fii laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mooy kenn ki nga xam ne adduna bi moo fi ëpp ñi ko bëgg mooy kenn ki nga xam ne adduna bi moo fi ëpp ay turandoom mooy kenn ki nga xam ne adduna bi li ñuy tudd turam par jour kenn du ko tudd turu kenn moo tax bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee tëkkaleeg ñii ñii wala ñu bëgg ko tëkkaleeg ñee xanaa dégg leen yàlla lu mu wax warafa'naa laka fazil ars mahmudun wa haza muhammadun ما خلق الإله ولا ترى بصرا يرى كمحمد بين اليرى بين الورى kooku du sunu moroom ci kaw buraaq la ko yàlla teg mu romb asamaan yi dem ba ci kaw asamaan jàkkaarloog yàlla naan ko attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi yàlla ne ko assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu malaaka yi assisté woon audience bi ne assalaamu alayna wa ala ibadallahi salihin yàlla ne ko loolu nañ ko def ci julli gi audience bi dafa rëyoon de wa tara al malaika xaafina min xawli al arsh la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah sun borom subhanahu wa taala nee na ilallahi marji'ukum yéen ñëpp ci man ngeen di dellu si wa huwa ala kulli shay'in qadir moom yàlla lépp la mën mbokk yi ndax yàlla am na lu mu mënul inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën bokk na ci pas-pasu jullit mu gëm ne yàlla lépp la mën yàlla amul lu mu tële ndax moom moom moom lépp sunu borom subhanahu wa taala nee na ala innahum yasnuuna sudurahum li yastaxfu minhu ala innahum naka ñoom ñii lan mooy seen melokaan mu ne yasnuuna sudurahum ah dañuy sëggal seeni bopp ci seeni gis nga nit sooy wax ak moom mu am gàcce bu la xoolee ba caag nan lay def day sëgg ni nii sëggal bopp bi ci dënn bi yéeféer yi noonu la ñuy def yasnuuna sudurahum dañuy sëggal seeni bopp ci seeni dënn li yastaxfu minu ngir ñu mën a nëbbatu déedéet fekk gàcce lañ am rek dañoo amatul lu ñu wax yàlla mu ne ala hiina yastaxsawna siyaabahum jamono yooyu ñuy muur seen yére yi ci seen bopp yi xamuñu ne yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbb wa maa yu'linuuna ak la ñuy feeñal yàlla lépp la xam innahu moom yàlla alimun ku xam la bi zaati sudur li ci dënn yi lan moo nekk ci dënn yi lan la mooy xol yi yàlla xam na li nekk ci xol yi al imam said hawa rahimahullah nee na su ngeen jàngee alquran bu aay yi di jeex na ngeen xool fu muy jeexee sunu borom subhanahu wa taala bu waxee inna allaha alimun bi zaati sudur man xam naa li ci dënn yi xam naa li ci xol yi kon yow yàlla bu xamee li nekk sa xol lan lan moo war ci yow nga fexe sa xol bi ba tawhid moo ciy nekk yàlla xam ne moom dong moo nekk ci xol bi ak ruslu ngay def wala ngay wax loo xam ne yàlla xam na ne lii du dëgg ci yow parce que sa xol bi jabet dafa opposé wu ak sa jëf yi li nekk ci xol bi du dëgg loolu musiba gënu koo rëy comme maadaama xam na yàlla xam na li nekk ci xol yi kon nañ leen sellal xol yi ñu setal ko loolu mooy darsu tey ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin yaa ko. soo amee ay question incha allah. bismillah. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yaa rabbal aalamiin.
dafa julli tisbaar mu def ba takkusaan takkusaan jotee mu ñëw mu fekk ñu julli takkusaan mu ne imam bi est-ce que mën naa ànd ak yéen si takkusaan bi après mu fay leen tisbaar bi